waxtu wiñ koy julli guddi la sabab bi mooy lu tax ñu koy julli mooy ramadaan la ban waxtu lañ koy julli ginnaaw bu ñu jullee gee ba pare ci ki nga xam ne waxtoom am na temps fekke na julli gee gi moog imaam mu nekk qiyaamu ramadaan huwa salaatu taraawix mu nekk julli naa naafila boo xam ne julli ñi dinañ ko joxe ci weeru koor mu bokk ci jaam yàlla yi màgg yi jaamu yàlla yi nga xam ne jaam bi ci lay jaar jege yàlla tabaraka wa taala ci weer woowu nga xam ne moom mooy weeru koor kenn ci boroom xam-xam bi ku tudd alxaafis ibnu rajab mu ne yow jullit bi na nga xam ne mbooleem xéewal mbooleem yiw yi dafay daje ci yow ci weeru koor ngay góorgóorlu bëccëg bi di jihaat waaye ngay góor góorlu guddi gi di jihaad mu nekk ñaari jihaad yoo xam ne dafa daje ci yow nga ciy góorlu sa kem talaayal kattan ngir nga mën a màng am tiyaaba yu bëree bëree bari yoo xam ne ëllëg yowmal qiyaam boo daje yàlla kenn du la réglé moo tax mu ne jaam yàlla bi bu góor góorloo ci weeru koor la bañ a def rek weer wi weeru lekk ba suur tëdd waaye bu yendoo woor bu guddee gi yee mu fanaanee naafila sunu borom subhaanahu wa taala da bindal tiyaaba Cheikh Ouseymin mu ne julli guddi ci weeru koor ngëneel yu rëy moo ci nekk ak ay may yu màgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne képp ku taxaw woor weeru koor fekk gëm yàlla moo tax nga woor ak sàkku tiyaaba yàlla dina la jéggal say bàkkaar mbokk julli yi julli googu di julli ki nga xam ne dañ koy julli ci weeru koor dafa ëmb mbooleem julli yi nga xam ne doomu aadama mu ngi koy julli ci julli guddi yi moo tax lenn ci boroom xam-xam sax dañuy wax ne suñu yonente alayhi salaatu lu mu daan julli su dul weeru koor su weeru koor ñëwee loolu lay julli moom amul changement lim daan la ci weeru koor su weeru koor gi jeexee tamit loolu lay continuer di naafila baat ba weeru koor gi ñëw mu continuer wàcc kon nañu yëg ne ndeke julli guddi julli yooyu ñuy julli su weeru koor ñëwee mooy julli yi nga xam ne moom lañ daan naafila rek ci guddi gi moom lañ daan def xiyaamul leyl li tax nag ñu àndal ko di ko teel a def dafa fekk ñu war ko def ci mbooloo di ko julli julli ginnaaw ginnaaw julli gee ñu daal di fay indi julli guddi yi waaye am na ci njàmbaar yoo xamante ne danañ julli julli yooyu ba pare sa terewul encore bu ñu tëddee nelawaat bu ñu yeewoo encore naa fi lawaat mbokki julli di mbokk yi ci yàlla julli googu di salaatu taraawix dafa bokk min qiyaami ramadan ci taxaw ci weeru koor kon ab jullit su yàlla dimbalee ko ba mu fekkee ko li war ci moom mooy mu xër pour julli julli yooyu mu toppatoo ko mu góor góorlu ci ndax mu màng ci ay tiyaaba yu rëy yoo xamante ne mu ngi koy jëlee ci allahu subhaanahu wa taala ixwatal imaan jullit day xelu jullit day yeewu jullit tiyaaba daf koy ñor màng tiyaaba ak fu tiyaaba mën a nekk ak nu mu mën a def ba am tiyaaba noonu américain yi naan jullit dafa war a wax tiyaaba julli googu di julli ramadaan sunnaal nañ yoonal nañ mu nekk mbooloo mu nekk ci jàkka yenent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki ko njëkk a def yenent bi yàlla tabaraka sant na ko mu julli mu daal ñëw ci jàkka ji daal di julli jàkka ji daal di fees del am na ñu ko yëgoon am na ñu ko yëgul ña ko yëgoon ba ñibbee daan ne tey de ñu nag yenent bi ñoo laa ñoo filandoo jàkka ji daa fees yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu fan bi mu ñëw fekk jàkka ji fees bay tuuru fees ba li ko wër fees yonent bi alayhi salaam daldi julli ak mbooloo mi ñetteeli fan bi jàkka ji fees ci biti fees daanaka ba roogalaan bëgg a dugg ci mbedd yi yonent bi alayhi salaatu salaam bañ a génn nit ñi too xaar ko ba sonn yonent bi ñëwul ku nekk gàddu sa sijaada daa di ñibbi yonent bi alayhi salaatu salaam ca suba sa ñu ne ko waaw yow. démb daal jàkka ji ni mu feese ak nit ñi ni ñu xëree woon ndax am na ñu ko fekkewul woon dañ koo dégg daw ñëw yonent bi ne dama doon bañ yàlla farataal ko ci yéen moo tax ma bañ a génn allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam ngoog moo xam yërmande xeet wi moo tax sunu borom subhaanahu wa taala joxoñ ko ci alquran ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galiza alqalb lan faddu min xawlik ci yërmande yàlla daal la la gaa yi wëree wallaahi ci yërmande yàlla la la gaa yi wëree soo nekkoon ku ñàng ku tar kuy gëddaatee ka xastaatee ka dóore kenn du nekk sawet mbokk yi yonent bi alayhi salaatu salaam yërëm xeet wi bëgg xeet wi yàlla bañ leen teg loo xamante ne dañ ciy jële coono mu ragal julli guddi julli ramadaan julli naafila nekk farata moo tax yonent bi aley salaatu wasalaam daal di bañ a génn moo tax bi yonent bi génnee àdduna Omar ibnul Xataab mu xam ne yonent bi génn àdduna yàlla mënatu ko farataal ci kaw nit ñi ndax yonent bi dem na moom la yàlla yónni woon Omar daal di dajale saxaaba yi dajale leen ci jàkk yi utal leen benn imaam ne leen nañ leen naafila doomi ndey kon julli guddi julli naafila googu di ramadaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo ko sunnaal mooy ki ko njëkk a julli ci jàkkaam ja sallallahu alayhi wa sallam après mu daal di koy bàyyi ndax ragal yàlla faratal ko ci kaw xeex xeet wi bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam génnee àdduna ci la Umar ibnul Xattaab dajale sahabatul kiram te leen imaam daan ne nañ julli kon looloo tax jullit ñi war ko yitteel jullit ñi war ko jox dayo jullit ñi war ko jox gëdd jullit ñi war ko jox euh, yitte. ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko fi bàyyi woon moom mooy ki nga xam ni moom moo ko njëkk a def Cheikh Ousaymin rahimahullah mu ne du dagan wala yambaxi li rajuli du dagan ci nit mu koy wuute an fa ani salaati tarawih daganul ci jullit muy ab absenté wala muy wuute julli googu mooy jullik la daf ko war a def ndax mu am tiyaaba yu baree baree baree baree bari beneen ba mooy boo ñëwee boo ànd ak imaam julli bul dem lu dul imaam na witir nga ànd ak moom witir ndax nga am tiyaabay ku taxaw julli guddi gi yëpp julli naa fi la weeru koor yonent bi alayhi salaatu nee na képp ku ànd ak imaam bi daal di julli gee daal ànd ak moom naafila bu julli gi jeex yow ba mu wiitir yonent bi alayhi salaatu nee na yow day am nga tiyaabay ku fanaanee julli guddi kon dana dagan ci jigéen ña dagan ci xale yi dagan ci mag ñi dagan ci ñëpp ñu daal di teewe julli googu ndax ñu màng tiyaaba yi nga xam ne moom moo ci nekk waaye lañuy wax bés bu nekk rek mooy jigéen ñi bu ñuy ñëw ci julli mbooloo nañu xam nan lañu war a génne seen kër yi nañu xam yan yére lañ war a sol nañ xam yan diw lañ war a laal nañ xam ne waruñoo def parfum seen yaram nañu yëg ne buñ ñëwee dañoo war a sori góor ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sàppe bi gën a baax ci sàppe jigéen ñi mooy sàppe ba ci ginnaaw sàppe bi gën a bon ci sàppe jigéen ñi mooy sàppe bi nekk ci kanam bu dee góor ñi la nag contraire la sàppe bi gën a baax mooy ba nekk ci kanam sàppe bi gën a bon mooy bi nekk ci ginnaaw bu dee ci jigéen ñi sàppe bi gën a bon mooy bi nekk ci kanam bi gën a baax mooy bi nekk ci ginnaaw kon diggante góor ñi ak jigéen ñi war nañoo sorante waaye loolu tekkiwul ñu ne jigéen ñi dañoo war a sori ba nekk ci seeni ruq di waxtaan kañ ngay teggeek waaw yére bi nga solak kaala gi jidda ko jëndeek ba ma rombee Dubai ak lam yeeg nangam ak nangam jaagar jaagar yi nekk ci jàkka yi di wax def jàkka yi grand place waxtaanukaay def jàkka yi làngukaay loolu moom du diine loolu daganut ñu bàyyi ci xel bu baax a baax jigéen mën naa dem julli ji ci mbooloo waaye na xam nu muy demee na xam naka la fay nekkee na xam ne néeg bi néegu yàlla la na xam ne néeg bi du caaxaan du waxtaanu àdduna du puukarewu du jaay maanaa du jaay daraja du wane wanewu moo fa war ba ab jullit lool nag góor ñi jigéen ñëpp a ko bokk ñu ñaan suñu borom jalla jalaalu wasa kamaalu mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ba suba incha allah ñu eggali dars bi